ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ ko def aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak di jiital nuyoo bi ci sëriñ Sidi Moxtaar sunu borom yàggal fu tama ànd ak ñaanal serigne Sidi moom Cheikh Abdou Lahad sunu borom yagal fulatam and ak wér di ñaanal mboolem wakr Cheikh Abdou Lahad yep sunu borom yagal leen ci and ak wér tay nak niñ ko baxo defé ci liggéey bi mu jëm ci waajtaayu magal Cheikh Abdou Lahad tañ and ko wa commission culturelle bi nga xamanteni serigne nii sëriñ Abdou Lahad Jaxate mom moko jité commission culturelle bi nak tay ñoo ñew fi ci kër serigne Mourtada Ñang mom serigne hafé Ñang mu mag mi nga xamante si ni sëriñ Afiya mook sëriñ Mouhamadul Fadal Mbakke ibnu xadim ibnu xaadim rasul ñoom ñoo bokk soxna maam Xawa Buso ngir liggéey bi nga xamante si ni dénk nañ ko waa commission culturelle Magal Cheikh Abdou Lahad ngir mag ñi nga xamante si ni daanañ ànd ak moom lépp loo xamante si ni lu aju la ci liggéey si Abdou Lahad rek luñ ci mën a jariñoo ak luñ ci mën a xam ba mbokk yeeg taalibe yëpp mën cee roy ba lépp lu ciy jariñ rek ñu mën a mu mën a rotaan ba agsi ñoom loolu moo tax a jug euh, commission culturelle bi lii nag mu bokk jataay yi nga xamante si nii daanañ ko faral di amal bii nag ñu amalee ko fii si Kër Mourtada Niang tataan ci moom ay euh, kàddu yoo xamante si nii kàddu yoo xamante si nii saa buñ ko buñ ko sotandikoo rek danañ ci am li nga xamante si moom mooy moom lañ ci bëgg te mooy digganteem ak Cheikh Abdou Lahad ak digganteem ni nga xamante si ni tamit maanaam lépp lu aju woon ci kër Cheikh Abdou Lahad te mën cee te bépp jullit mën cee jëriñu bépp talib man cee jëriñu lolou mom lañuy tatane fi ci keur Cheikh mohammed Mourtada ñang xamna kaddu yu yi de bañ gudd lol ngir waxtu wi xawna xat waye kon dañuy bayyi señ bi mom mu daldi tambali bismillah. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci tank yi ngeen ñew fi ngir jëm yalla ak yoonte bi ak Serigne Touba. ak bëgg laaj aslëf ci sunu xam-xam bu gàtt ci li nu jaxasoo woon ak sëriñ bi xam naa nag euh, sëriñ Abdul Ahad man sëñ Modou Mamoun Niang mooy ki nga xamee ne moo ma boole woon ak moom li nu boole nag sëñ Abdul Ahad dafa jëloon sëñ Modou Mamoun Niang def ko secrétaire yàlla dogal ma nekkoon ak moom ma nekkoon ak sëñ Modou Mamoun Niang di rakkam itam yàlla dogal bi mu demee ba nga xamee ne liggéey bi diis na ci moom mu wax ma ma koy jàppale ci liggéey bi moom sëñ Modou Mamoun Niang booba nag sama digg ak sëñ bi du du maag sama du ma du maag moom moo sëñ sëñ Modou Mamoun Niang la man ak sëñ Modou Mamoun Niang yàlla dogal bi mu demee ba nga xamee ne nag maa ngi koy aw ci yenn yi su koy su ko yónnee da koy wax ne ko Mourtala mi ngi fi sama rakk la te doy na ma bu ko defee nag même su doon yendu man maa fay maa fay koy wuutu bu ko defee su amee soxla ca la sëñ Moodu Maamun daa def man lay woo yàlla dogal na itam mu mu ka mu daa ko yónni ay yónnent yu yu xaw a yu xaw a yu xaw a yu xaw a yàgg lii moo dox sama diggante ak sëñ Abdou ban ban ban kii léegi nag ci biir loolu itam nag sëñ Abdou moom dafa doonoon koo xam ne kii bu la joxee kilifteef yow jox na la responsabilité mais lu ca yoonu kenn nekku ca lu ca sikk yow la kenn du ci dugg ci biir loolu moo tax su masaa dem fenn bu ko yónnee man ma wuutu ko loolu mooy wax ci dëgg dëgg dëgg mooy li ma booleek sëñ Abdoulaat te booba itam ndaw laa waaye moom euh, xoolul loolu lim xool mooy kii daal ndaw la waaye lim bëgg mën na ko moom seetul nii kii mag la walla ndaw la li muy seet mooy kii lim bëgg mën na ko su ko manee muy ngay mag muy nga ndaw la ci yemale loolu mooy mooy li jaar sunu diggante euh, bu dee wàllu liggéey bi nag dama bëgg a leeral fii tuuti rek mooy sëñ Abdoulaat solo dee liggéeyloo dana ko tëral tëralin woo xam ni même bu fekkoon ne ab yàqkat nga itam mën naa am dana ko tëral tëralin woo xam ni jombul yàq ga du metti du am solo waaye nag am na fulla ju tool ne itam lum la dénk soo ko dee def nam ko bëggee dana ko ca bàyyi waaye saa boo xam ne bii nam ko bëggee woon defoo ko ni am na fullay fayda ju ju tool ne dana ko ne foqit ci yow jox ko keneen ku ko man léegi nag euh, sëriñ Cheikh Jaxate moom sëñ am sut moom sëñ am sutu Jaxate la joxoon procuration yooyu jamono nag euh, lépp da daa jaar ci poste bi booba ku ñuy wax mbóoj mooy njiital moo yore poste bi ci 28 sëñ Cheikh Jaxate moom ay lettre bu ma saa ñëw moom mooy dem jëli ko su demee la nga xamee ne mooy euh, mandat yi mu récupéré ko indi indi itam euh, lettre ya bu ñëwee jox ko sëñ Abdoulaat bu ko defee moom noppi na ci sëñ Abdoulaat woo ma ma ñëw mu jox ma bataaxel yi ne ma demal nga yóbbu ko nga seet ko te ñëwaat su ma demee du tee nag liggéey bi moom mi ngi dox yow yaay am temps lettre bu nekk nga teppi ko jàng ko bu dee sëñ Abdoulaat Jaxate nga señ sëñ Jaxate dekk barab sangam neena nangam ki nangam nga teunk ku ci aw keuyit da ngay wut bic ak keuyit tek fe bu ko defé teunk ku daldi demat ci señ Abdoulaye busu ci misal ne mom itam mi ngi dekk barab sangam neena nangam ki nangam legui nonu ngay topé lettre yi ba mu jeex bu ko defé nga daldi di tekfe teewul nek yeen gi ci liggéey bi bu toogee bam am jot moom mu ne la ana sun bataaxele nga ne ko mi ngi nii la bisimilah nga daal di indi nag fekk na yow bu ci nekk teppe nga ko jàng ko ko xam nga la ca nekk nga tënk ko bu ko defee mu ne la bisimilah yaa ngi moom ak yàlla nag kenn du fekki bu ko defee nga ne ko sëñ Jaxate dëkk barab sàngam nee nangam ak nangam mu ne la waaw léegi nag ne kooku tontu ko nee ko nangami ki nangam nga wut waneen këyit bind noté loola teg daal demaat ci beneen bataaxil ne sëñ Abdoulaye Boussou moom itam nee na nangami ki nangam mu ne la tontu ko moom boobu du li dicté loo koy tontu moom dana la tontu ko yow xam nga li nga koy tontu bu ko defee am beneen bataaxel boo xam ne yu Masamba la nga ne ko Masamba di dëkk bërëb sàngam nee na nangami ki nangam mu ne pat nga xam ne boobu moom tontu la wula ko waxul nga tontu ko néewul waaw waxul nga tontu ko nga bàyyi boo demee nag ba amaat jot nga tontu yépp yow boo ko tontoo nga ñëwaat ci moom waaye nag ñëw gi da toog ba mu woola ne la ana sun bataaxee nga ne ko mi ngi nii mu jàng yam ca war a signé ndax bataaxel yi ñaari façon bataaxel la dafa am boo xam ne bi kenn la am yoo xam ni mooy yu daayire yi yu kenn yim lay woone la bind ko nag yooyu moom lay signé léeg-léeg mu xool ko nela la signel ma daal di sukk ci kanamam ci ci peggam daal di signé may itam li may signé si Abdoulaye Mbacké moom lay signé du su toogaatee waar la nela la euh, bindal ma beneen bataaxil soo ko bindee boo ñëwaatee bu ma ñëwaatee dama naan ko siñeel ndax su ne la rek bu ëllëgee nga bëgg sukkandiku ci lam ne la ngay bëgg ngay signé dangay ngay faw moom ndigal lu bees ngay amaat rek doo sukkandiku ci lam la waxoon rek il faut nga nga ñëwaat ne ko signal su ko neexee mu daal di mu daal ne ana fu may signé nga jox ko ne ko fii mu signé. su ko neexee mu ne la señal baata ak tontu moom man fii si damay daal di signal rek ndax moom bu ne la defal defal bu ne la bàyyil bàyyil kon euh, loolu moom laa bëggoon a leeral li ci des mooy euh, woote bu mujj bi maanaam yokk jumaa ji xam nga dafa am ay daayira yu nekk bitim réew euh, Italie Espagne France yëpp dafa wax ne Euh, waxtaan yu ma def ngir yokk jumaa ji léegi nan ko sotti ay kaset ñoom ñëpp ñu yónnee leen ci kaset fekk na yoroon na euh, seeni adresse ñu arrêté ko maag saam mi euh, dafa amoon moom dafa jëndoon magnétophone boo xam ne bi duubal kaset la nga day sotti ay kaset yu bari ñu jënd band yu bari ay bas bandi bas fu ñu sotti ko lu baree bari léegi nag daayira bu nekk ñu jël benn ambulon ëm dugal ca kaset ba euh, def ca euh, kii ba def ca nu mu tudd ba daal di dem postu recommandé ko ba ba mbóoj moo fa nekk ñu def euh, kii yëpp recommander nga xam ne bu àggee bu fa fekkul boroom dañ koy dëpp mu ñëwaat loolu la ndax loolu lim ci jublu mooy daa bëgga wan waa bitim réew ne leen yéen itam ci yëf yi ci ngeen bokk moo tax ba mu defee waxtaan itam daf leen yéen ne kenn ku ci nekk kaset ñu yëg ci seen bopp euh, léegi ñu jàll ci ndig loolu moom loolu laa amul lu ma ci doon leeral tuuti mu jàll ci digle sëñ Abdou Sakour xam nga moom mu mujj ci doomi Cheikh Ibra yi moo ci mujj nekk xalif ci doomi Cheikh Ibra Fall yi yàlla dogal bi mu wàccee ab liggéey ba ne suba la daf maa ma ñëw mu boole ak bàcc géey ne ma jox ma aw kayit woo xam ne moom bindu ko man binduma ko du ko bindulu waaye xaw ma ko ko bind waaye jox na ma ko ne ma demal Mbàkke ñu photocopie ko boo dem ak bàcc gi ñu dem Mbàkke fekk fekk photocopie ba paan ñu daal di jàll njaareem ndax moom bu la sante lim la sant dangay ngay kon da waa dangay fexe ba loola am ci lañ jàlle njaareem ci digg bëcc gi dem photocopie ko indiwaat ko bi mu ñëwee bi ñëwee ñu jox ko ko bu daal di denc ca ëllëg sa la ma woo lu ma ñëw mu woo sëñ Basiiru Saar jaamu borom Tuubaa ak bàcc gi mu ne yéen ñaar ñi dama leen di yónni booleen leen ak bàcc gi bu ngeen demee ca Baay Faal yi ku ngeen dem ci moom na ngeen ko jox kayit yi te jàngal ko ko soo ngeen ko ko jàngalee mu lem def ci poosam baax na su fekkee jàngal nga ko mu nee nan dem ca mbooloo ma ñu jàng ko fa ngeen dem ca mbooloo ma jàng ko fa kayit wa nag lam ca waxoon ci tënk mooy yéen waa kër Cheikh Ibra Fall digal naa leen képp koo xam ne kii Cheikh Ibra moo jur sa baay moo jur sa waajur na jële fii ci kii fi nekkal Serigne Touba ndigal képp koo xam ne kii nag Cheikh Ibra moo seexaloon sa baay na ngay jëlee ndigal ci ki fi nekkal Cheikh Ibra daan ne yéen waa kër Cheikh Ibra euh, ndigal bàyyi ko fii lii seen lii seen mbañ mooy ndigal bàyyi ko fii ba noppi dellusiwaat loolu ñu daal di ànd maag sëñ Bassirou Sarr dem bu ko defee nag ndénkaan la mooy loolu ma dem ci wàllu dëggoom ni mu dëggoo dafa am benn daayira boo xam ne bi dafa mës a ñëw ba nu siyaaree joxe seen addiya ba noppi léegi ñu ne ma kat sëñ bi danoo bëggoon suñ ci amee ndigal sëñ bi may nu ndigal ñu wut aw kartam fotoom def ko ci sunu carte membre yi yére bi bu ko defee kenn ku ci nekk am ci ma ne leen waa baax na léegi su ngeen di tàggoo ñu ànd dem su ma leen bindalee lettre ba noppi ñu ànd dem suñ demee ngeen waxal ko seen bopp ndax xam naa waaye sëñu maa wax xam nga euh, du càggee ne loo xam sañ koo wax ban demee ma ne ko ñoom de bindal naa leen bataaxel ba noppi waaye ñoom dey dañ laa soxla woon ñu ne waaw lu mu doon ñu ne ko mbàkki de bindal nañu bataaxel bi ba noppi waaye dañ doon sakku euh, sa photo suñ ci amee ndigal ñu def ko ci sunu carte membre yi daayira bi kenn ku ci nekk am ci mu ne leen ah loolu de baax na lool waaye ma de dama bëggoon ngeen def ci photo ku baax ki ndax man su ngeen ma ci defee itam balaa la ngeen xeet ko def ci kaneen kon nag def leen ci ki nga xam ne du fi jóg bu mukk mooy Serigne Touba loolu ak dëggoo ma ko waral xam na ne yëf yi njëkkewul ci moom te du ci mujj daa dox ba ñëw ci loxoom ca di ci dana ci génn léegi kon bégle kon foofu foofu laa yem li ci des mooy dafa am benn bis mu ne ma yéen jàngkat yi xam nga bu ne may yéen jàngkat yi ci man xam nga loolu mooy maanaam xeebut kenn rek ne ma inna allazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faaraqu daarini aw saara yéen nu ngeen koy firee ma ne ko ma bëgg kii mu ne ma deen waxal rek ma wax la ma xam mu ne ma ah waaw noonu la de waaye nag euh, ma leeralal la ne ma mi ngi mel ne ma ma misaal la nu gën a leer loolu ma ne ko waaw mu ne mi ngi mel ne soldaar bu nekk ca front ba di xeex ban ràññeeku bis ban koy takkal garaat ka jàng kay jàng discours ba faw mu cité barab ban ko doon takkale garaat bi kay jàng discours ba di wax njàmbaar gaak yooyu faw mu tudd barab ban ko doon takkale garaat ba waaye suñ ko ko xasee takkal nag fu mu jëmati moo garaat ba ànd léegi daane ne ma ba fii mu tëdd képp ku ko fi fekk siyaare ko moo ka ko fekkoon sarsaara siyaare ko ñooyam loolu leer na léegi ñu jëm ci kër yi dafa maa waxoon ne ñaari kër la am Touba Mbakke Touba Belel dama kër yi ci des yépp bu ci nekk dama ko def ci turu sëñ Touba ëllëg ki si biir ku fi nekkal sañ Touba mu nekk ci sa kilifteef waxul na nga moom ko mu nekk ci sa kilifteef boobu leer waaw léegi dafa am ba tey Eh, jubbanti mooy yeete dafa am bataaxel bu ma doon binduloo dafa am ku ko joxoon ak kër ca njaareem du jar may tudd tur wa waaye ku ne wax góorum njaareem Baye Njaxat ñun nag dañ koo miinee wax Baye Njaxat mu ne ma bindal ma ko bataaxel bu ko defee kër googu nu ma joxoon mu jox ko jiw ma daal di jël eh, aw kayit bind papier en tête am bind salaamaaleykum wa rahmatulah yow Baye Ndiakhate daal di wax la ma wax loo bind ko ba noppi bind la ma bind loo daal di ñëw wan ko ko pour mu signé ak itam xool mu xool ndeke mën na ko jëyi mu xool daana ma yow la sa baay parce que yow Baye wax man binduma moom mooy bind sama xel génnoon ci loolu jubbanti ma ci sasi si na ma xanaa yow lay sa baay ma daal di jëlaat kayit do daal di génn néew ma kenn nag lee tax may laaj dama génn rek daal ne waaw euh, góoru njaarim num mu tudd ñu ne ma diw sëriñ jaxate ma daal di ñëw bindaat bi bi ma ñëwee xoolu ko dafa na ma ñuy signé ma ne ko fii mu signé waaw waaw xam nga bàyyi njaxat moom moom moom moom mooy bind kon wërta wax bàyyi man nag man euh, ginnaaw wàcc bees laa ci misaal njuumte mënta ñàkk waaw waaw waaye nag waaw mu mu ne ma xanaa yow la sa baay xam nga léegi moom ba ma waxee loolu rek man daal naa xam ne juum naa ma daal di jëlaat kayru ci moom dem laaj ñu wax ma tur yi ma ñëw bind daal di ñëw xoolaatu ko dafa signé rek léegi ba tey Euh, ci wàllu bibliothèque bi xam nga dafa xaw a sori sax fi koy tàmbalee manees na ko wax waaye El Hadj Modou Mamoun Niang moom la doon doxloo ci wàllu googu mooy machine yi naa ko tàmbalee ci machine yi bi mu koy jënd sëñ Modou Mamoun Niang la yebal Ndakaaru ca El Sëriñ Sàmb benn machine la njëkk jëm jënd machine bi Euh, ñu ngi ko jënd ci benn société bu ñuy wax société bu tudd Bompar machine yi euh, marque bi Abidig la ban ko jëndee ba noppi euh, dafa yebaloon El Hadj Mbacke moom sëñ Ibra Dia rek sëñ Abdou Dia Duyooli ak sëriñ Mewndu Jaxate Faas doomi sëñ kii Jaxate male sëñ sëñ Amsatu Jaxate waxuma mii sëñ Amsa Jaxate ma nek mbakol mu yobal leen ndakaaru ñu def euh, formation ban demee fofa ca ca société bi jaay sëñ bi machine bi ban fa nekkee di jang ba mokal bané ne nan ñu indi machine bi yalla dogal ku neex bay di Fall moom moo nekkoon euh, ca société ba dafa liggéey ñu bolé ko mom mu indi mu indi mu ñew ñu installer machine ci biir loolu nag baydi moom wax ne daa bëgg a toog sëñ bi ne ko ah xanaa buñ ci waxtaaneek sa kilif bam nangul nu ko bam bam bam nangu ki ko doon indi waaw xam nga bay di moom euh, da doon liggéey foofa ca ca ca imprimerie ba imprimerie la waaye dan doon société la boo xam ne dañuy jaay ay ay machine machine u mool machine mool boobu machine imprimerie dañ ko doon jaay bay di nag fa la doon liggéeyee léegi nag bi ñu leen jaaye bu ñu jaayee ba pare itam nag day accompagnement maanaam il faut fi ñu ko installé dañ koy booleeg nit koo xam ne kii dafay nekk ab ay fan ba kooka man mu door a delluwaat ci société ba ci diggante boobu nag moom mu ne daa bëgg a toog moom mu ne ko bisimilah kon daal di waxtaan ak tubaab bi nga xam ne moo ko fi yabaloon mu daal di koy nangul léegi nag mu toog waaye dafa laaj lan ko daa fay lan ko daa fay la ko tubaab ba daa fay la koy fay weeru dee da ko booleeg Serigne Samb commerçant ban Ndakaaru weeru dee mu dem dakaar Serigne Samb fay ko lan ko daa fay teewul nag euh, ñun waaw ci biir loolu nag man ci boobee nag lan ma recruter man dugal ma ci machine yi boobe ban ban installé ba noppi lan ma boole may bokk ci ñi liggéey ci machine ya foofa la foofa lan ma jàngale machine 1977 euh, fekk na booba ñu ngi ci biir kër gi nag machine yi ci kër gi lañ ko installé woon ci biir kër gi ci benn néeg bi liggéeyu bibliothèque bi pare lan toxal machine yi jëlee ko ci kër gi yóbbu ko euh, bibliothèque bi ma 1977 su ma jumut léegi nag mu des sëñ mu sëñ Abdoulaat woo sëñ Modou Mamoun Niang yo yónni ko ci bilaadul arabia ngir mu jënd ay téere mboolem xeeti fànni xam-xam yi mu mu mu doonul benn at nag ay at la mu di ko jëndi bin ko dajalee ba noppi mu ne nag eh, lii bibliothèque dafa am nu mu nu mu nu mu baaxoo léegi kon nan seet koo xam ne kii jàng na ko mën na ko daal di koy wax Abdou Diouf président bi fi nekkoon Abdou Diouf ba mu ko ko waxee mu ne ko nag waaye bu bu bu jàng bu xam bu jàng arab ñu daal seet gis na ndaw mii moom bibliothécaire la te jàng arab ñu daal di ko koy jox détaché ko fi nga xam ne fonctionnaire la moom moom ndaw bi mu ñëwee nag lim def mooy. ren maanaam programme mu bibliothèque ni muy ni muy mel ni mu tëre ni mu tërale mbeelam mbeelam xeeti fànni xam-xam yëpp bu ci nekk daf ko sélectionné lu ci nekk mu def ko ci taseeram te bind ci boo boo rek da ngay xool taseer bii ne lii laa la doon laa doon gëstu nga rocc bu dee itam taseer yi nga xam ne la bind na ko yédee xasida bind na ko fànni xasida itam bind na ko bind na ko ci taf ko ci ndax li mu gëm mooy moom euh, lépp loo xam ne lii mi ngi koy def na seet ku ko man mu dénk ko ko mu koy doxal waaye du seet ne kër sàngam wala kër sàngam wala fenn la bokk moom gëmul loolu li mu gëm daal responsabilité bi yàlla moom la ko teg mm-hmm. léegi na ko doxal waaye nag lu lu nekk ka ko man la koy dénk kon moom gëmul loolu li mu gëm mooy gis na ne xëy na ñun li mu bëgg mën nañ ko mu woonu ci bu doon xool ay mbokk kon dunu dunu dunu du nu woo ci liggéey bi kon nag moom li muy xool ki ko man bu doon xool bu doon parparloo kon bokki mbaakol mbaakol mi yow sëñal daal jaxati mi say mbokk lay woo mais moom gëmul loolu léegi mu mu mu mu des nag su ma saa wootee ab liggéey su ma saa wootee eh, liggéey lu mel ni jumaa ji woote bu mujj bi xam nga mooy yeesalaat solaatal ko mëneen mbubb jumaa ji léegi foofu li ma bëgg a xamle mooy moom lépp loo xam ne engagé na ko loolo moom loolu rek muy itteem laneen du itteem lu dul loola ndax nee na as su waxagut moo moom boppam mais bu xasee wax nag moomatul boppam ba ba ba ñun ñii sax su lu mel noonu masa am wax dëgg ndax euh, sarax bi mu nu daa jox sax duñu ko joxati duutuñu ko joxati ci misaal léegi loolu li ma li ma bëgg a leeral foofu mooy daa wutoon gaalu weñ gaalu weñ yii yu naar yi euh, xombe ko danoo bënn ca digg ba bën bën bu yaatu mu jël caabi ji yónnee ko sëriñ Samb ma nekk Ndakaaru léegi nag saa bu génnee luñ ko jox xam nga daayira yi am na ñoo xam ne dañuy wax ni lii ci liggéey bi lii nag suñu àddiyee la lii diw moo la ko jox nangam nangam moom day faalaxe lépp bu poos yi feesee mu daal di wax si Sile ne ko inde waxande wa

loolu moo mooy loolu il faut ñu leeral la waraloon loolu léegi nag bu gaal gi feesee day wokku ni Ibra Gaye xam nga kër gi ñetti taxi mbaar moo fi nekkoon yu doon dox ay itte taxi mbaar yi dinaa ci ñëw waaye kon Ibra Gaye lay woo mu yóbbu gaal gi ndakaaru sëriñ Samb moo yor caabi ji su demee mu ànd ak moom dem ba ca banque ba bu ñu demee euh, kii Ibra Gaye daa dem ca sëñ Samb ñu ànd dem ca banque ba suñ demee ñu wersi ko fa bind wersi ko ci compte sëñ Tuubaa bi daal indiwaat xottu gaal gi su feesaatee ñu del delluwaat delluwaat ba ni waxee ne lin li ma doon li ma doon laaj mat na léegi boo daayira yi euh, daayira yi dan daa def daayere buy ñëw du ma ne yëpp nag waaye daayere yu baree bari suñuy ñëw dañuy yëglu ne bi sàngam la ñuy ñëw bu ko defee ñu bind euh, daayere bu ñu yëgloo léegi de ban xam ne nangami daayere ñoo fi ñëw ay fédération di ci bokk yenn saa yi fédération nag boo ko déggee ay daayere yu baree baree bare lay doon yoo xam ni dañuy ñëwandoo bu ko defee nag day wax baara ne ko ñii fi ñoo ñii ñoo fi ñëw ci daayira ak kilifa yooyu waaye nag bu ñëwee bu kenn xiif bu kenn mar jox ko dépense yu toll noonu baare itam dafa amoon équipe spéciale boo xam ne bi ñoom bu gan ji ñëwee bu daayira ñëwee bu buñ toggee ba mu sotti dañuy woo par daayira ku ñëw ñu ne la ñaata ndab moo lay doy nga ne nangam ñu yëkkati dab yooyu jox la waaye nag mbaar mi itam ndox mu ndox xeetu ndox yëpp da cee am nga xam ne ku bëgg a naan moom dangay dem naan rek bu añ bi ñëwee dañuy lekk ba mu des ba suur këll bu dee kilifa yitam nag kenn ku nekk fa nga nekk moom falan lay dalal say teraanga fa la lay fekk am na ci ñoo xam ne sax bu ñuy tàggoo day manque am xar ca ca euh, moom du ko yëg bi dañuy ñëw ne chauffeur bi eh, anam eh, ubbil sa maal nga ubbi sa maal rek ñu def ci nga xam day dem ba àgg rek ndax buy nettili waa kër ga du yëg dañuy jekki-jekki mu daal di xam ne ah moo li ma leen doon wax ngi léegi far waaw léegi jëm doon nettali ñoom bokk nañ ci far moom dépense yi eh, yi muy joxe sëñ Blaat dafa euh, joral ay nit ay dépense par trois mois yu ne ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi mbokk yi ak bokki taali bi ñetti weer yu nekk Ibra Gaye kenn ku ci nekk maanaam bu dee Mourtala Niang man nag bokkuma ci woon bu dee Mourtala Niang ci misaal euh, danay wax ne Mourtala day bis bu nekk nangami kilo moom lay war a euh, sóor ci ceeb nangami kilo lay kii ci ci pepp ñu calcule loolu trois mois yi calcule itam léegi dépense ba ba ca war a tege de trois mois yu nekk Ibra Gaye mooy ñëw jox la ko noonu la saxawoon léegi nag ñetti taxi mbaar la la jëndoon benn bi ku neex Ibra Dieng bi ci dess sanu Ndiaye bi ci euh Khadim Guèye ñoo nekkoon sëfur yi ñett taxi lolu mom lolu do nga sen ak ak séddalee xari tabaski yi foofu itam dina fi ñew xari tabaski leg leg léeg daana séddale xar yi waaye nag dafa programme mom ab liste la defon bo bi xari bu waa kër sëñ Touba yi lay njëkkee ñu góor ñi ñu jigéen ñi sët yi ñu mag ñi kenn ku ci nekk ab lim la lay jox bu noppee beneen liste boo xam ne bii ne ki ñenn ñi kilifa yi ci des ak seenu njaboot bu ko defee nag liste boobu yi nag la topp kenn du ñëw kenn ku nekk fa nga nekk fa la lay fekk jox la ko ñetti taxi mbari yi looloon doon bu dee jamono tabaski noonu la ñuy def bu ko defee danuy sarse ba mu fees ñu jox ko list bi ne ko demal yóbbu bu demee joxe noonu la ñuy def am na yoon boo xam ne bi ay ay maanaam bii rek laa bëgg a nettali danoo joxe list yi ba mu jeex fekk na nag am na ay bokki taalibe bi yoo xam ne nag du bokkut ak ñii lii ci programme bi nga xam ne ñoom dañuy ñëw di diis si ndimbal ci xaram tabaski daf na ma dajaleel bataaxel yëpp bu ko defee nga def ko liste bu ko defee gétt gaa nga ne taxawul ci bunt bi koo na dugg jëlum xar ma daal am ñu ma booleel ma ànd ak ñoom ñu taxaw man liste bi laa yor bu ma ne diw nga ne waaw ñu ne la duggal noonu lañuy def ba ba ba gétt ga jeex su xëyee ci bisu tabaski gi bu xar yi jeexee ñi nga xamee ne ñëw nan moom moom ñi mu war a jox moom da leen di jox moom ba noppi moom waaye ñi nga xam ne ci suba gi ci poosam lay génne di leen jox ba julli ji jot mu door a dugg ci oto bi dem julli ji foofu sax am na fi loo xam ne lii danaa ko wax sa seex njool sëñ seex seex Mbakke moom sëñ Moussa Basir am na benn bis mu koy tooñ naan ko ah sëñ bi nag di lii nag dëgg-dëgg nguur la ndax daal di dem xam nga sëtam la di dem dégg nga motaar yi topp la dégg nga nangam nangam escorte la mu ne ah Cheikh man de yow wuti na ak yow man di lii xam xamewuma ko bés ban ma tëralee ci jaab te ma yóbbu ci armée la loolu day wuti nan euh, kër Serigne gii gii ci jumaa ji kilifa yu bari def leen fee santoon ñu def fi apartement ñu bari du ñëpp nag waaye ñu bari léegi nag ba mu noppee kenn ku ci nekk daf laa wax nga wut ku la fa nekkal nga xam ne moom mooy saytu loola yow yaa ko liggéey danga fa indi koo xam ne kii dafay nekk nekkal la fa di ko garde lu ca sikk yaa koy defaraat mboolem ñu fa amoon euh, euh, bâtiment noonu nga defoon li ngeen ma laaj ci tableau bi bind ci euh, buntu kër sëñ Touba bi bi liggéey bi noppee euh, dana wax ne dañ fi def benn tableau sëñ bi dama wow booba mu ngi nekk ci kër sëñ Touba gi ci bâtiment boobu waa Daaru Salaam liggéey dama woo ca biir ma ñëw mu woo Abdoulaye Touré jàngkat booba daayira étudiants yi ñoom ñooy defar tableau bi ñu bëgg sëñ bi jox leen aw tur mu woo ma ma ñëw mu ne ma bindal ma dóori wa ma lixtiira min jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani bind ko ci kayit ma daal di koy bind jox ko mu daal di koy jox booba Ceerno Ndoy moom moo moo fa teewoon mu bokkoon ci kilifa yi euh, daayira indi étudiants yi loolu leen bind ca tableau ba kayit woowa mi ngeeg man parce que euh, ba ma ko ko joxee ñoom dañ ko danoo jël mbind mi rek maanaam dañ ko bindaat delloo ma sama day kayit waa ngeeg man dama dicté dal ne ma bindal ma duri o ma lixtire min jirani na jietun min jaalibil xusraani ma daal di koy bind ciw kayit du daal di koy jël boba ci kanam cerno ndoy ak Abdoul Ahad Touré jang kat motax bi san bi sopé tableau tableau bi sax xawona ma am touti way ndeke dañ ko binde ca ca pegg ba bu ñëk ne dañ ko bindon xabu mak nga dafa tambalé ni ba wàcc nga xam ne foo toll di ko gis nag euh, diggam ak euh, kër yi diine yi euh, am na gàmm goo xam ne gi Tiwaawoon la 1981 bokkoon naa ca délégation ba man ak sëriñ Moustapha doomam ak sëñ Abdoulaat Mbakke moom sëñ Moustapha Bassirou ñun la yabaloon ñu dem teewali ko fa ca ba nu demee sant nan bu baax gërëm nañu ndax la cay firnde ja mooy Alaaji Abdu Asiis mi nu dalaloon ca ay numaa foofu la nu dalaloon ban jekkee ba ngoon itam danoo escorté ñu dem ca cérémonie ba fekk waxtaan wa ban pare ñu escorté waat nu ñuy ñëwaat ay numaa ban demee bay tàggutoo ak moom sant na sant goo xam ne gii moom Alaaji Abdu Asiis euh, la koy firndeel mooy moom

bu ngeen demee lu ngeen ko wax ci lu baax maa ko wax lu mu wax waxaat ko ba Maodo doomam daan ko papa ñii danoo yaru rek mais sonn nañu <laughs> ñii danoo yaru rek mais sonn nañu mu daal ñu ñaanal ñu daal dem léegi euh, sëriñ mat sa xerloo borom daara ja kokki ba mu gaañoo ba tey ci relation yi mu amoon ak ñoom euh, man la woo ak sañ sañ sañ sañ man la woo ak euh, sañ seexu naa doomam tubaab la ñu teggi dem jaaleel ko fekk nan ñu rob ba noppi waaye fekk na nit ñi jógeegun fa ñu dem wane ne sëñ beenu yabal ñu fekk fa sëñ Sam Mbaye wax ak moom daal di ñibbisiwaat bu dee li muy tere da cee waxtaanu sëñ Abdou Khadir sëñ Saaliwu sëñ Murtada sëñ Soin bu ñëpp da cee waxtaan ak ñoom ba noppi nag ban juboo ca kenn ku nekk signé ñu ñu tënk ko ci kayit kenn ku nekk signé nga xam ne yaa signeel sa bopp la ca des dafa dem Jurbel euh, booba procureur bu tudd xaw ma dama fàtte nu mu tudd te dama koy fàtte ba tey mu ngi ci document bi Euh, sëñ Cheikh Jaxate la andal ak aladji Modou Mamoun ñang ak am euh, Amsatou Mbacké ak mom bu musi. Moussi ban demee ñom ñoo signé ci procureur kenn ku nek da nga signé mu signé ci ci ci li li ci dëkk bi fekk na ñi nga di rakam. waxtaan na ci ñom ñom itam kenn ku nek signé nga bu ko defé lu mel nonu bu amé kenn koo xam ne kii man maanaam bu bu bu bu yëfi xasee jóg maanaam bu bu fekkee commencé nañ appliquer yëfi ku bàyyi ko ca njabooti ñooñee boo ñëwee ca kilifa ga boo waxee moom du la jublu ndax fekk na sa kilifa wax na waaye wax na ceeg yow ba nga ànd ci ak moom ba rafetlu ko ba ànd ci moo tax lépp lum daa def da cee wax ak ñam ca war a waxal ban ànd ci mu door a yëkkati kàddoom bu xasee boo xasee yëkkati kàddoom nag moom jeex na waaw waaye nag balaa sóobu dana xam li muy sóobu lan la ak ñam ko war a àndal mu ànd kam ñoom ku mu dénk ab liggéey itam am na fulla ak fayda ju toll am na fulla ak fayda ju toll ne euh, soo dee wee liggéey ba mu bàyyi la ca soo ca defee njuumte du caage ne mu lay dalay sanctionné fa saasa déedéet da da lay Boko defate man defaatee mën na laa woo wax wax ak yow bu ñatte man na am ñaara manam li ci doole day wote day wo ko melni seigne Modou mamou ne wala ma Samba wala ma Demba fekke jotaay bi mu ne la abdoulat yow day nangami ki nangam defo na ne def nga nangam def nga nangam def nga nangam nga xane lo massa def dana la ko dana la ko wax léegi nag ñaar moo am benn mu bàyyeewaat la tante sens walla boog mu bala léegi lam lam la joxoon da koy jël jox ko keneen mais nag relation ba du ko dagg lam la dénkoon lay jël jox ko keneen waaye seen diggante moom du du du dañ du ko dindi du tee boo amee soxla ñëwal wax ko boo amee problème boo ñëwee mu mu waaye waaye lam la dénkoon moom jël na ko ndax yëfi mbooloo moom moomu ko mënoo ko nag te moo moo moo moo responsabilité euh, nag yëfi te itam euh, njabootam wax dëgg yàlla gisuma woon kenn ku bokkoon ci ci ci xilaafa gi xëy na daana leen defloo waaye xilaafa gi moom gisuma kenn ku mu ci joxoonu cër koo xam ne ki jox na ko jox na ko waaw gisuma ko man bu amee itam gisuma ko waaw dimanche 17 juillet dama toog fii ci kër gi Abdou Jaxate ñëw bëkk néeg la ñëw ñëw ne ma ñëwlu wuy sëñ bi fekk na ñee ab daayira lañ yoroon bu jógee euh, reefan maanaam ke euh, euh, Issa Ndour la tudd ña nga cosaanoo Rayfan waaye Ndakaaru la nekkoon di fa liggéey danoo indi seenub daayira bi ñëwee nag sëñ bi laaj ma ñu ne ko xëy seegut moo Abdou Jaxate ne ko ndax ñi yor noon oto mu ne leen waaw mu ne leen ko dem leen jëli Mourtala ba tey mi ngi ñëw ci lépp lum la dénk yow boo fa nekku itam dana la woo ba nga ñëw liggéey loola bu ca lu ca sikk yow yaa yaa yaa yaa yor responsabilité bi ci la ma Abdou Jaxate fekk fii woo mañ ma dem ba ma demee ñu siyaare ma bindal leen bataaxel àndaat ak ñoom ñëw ñuy tàggatoo fan ñuy tàggatoo lan photo photo bi muy ci yor-yor gi entre dix heures onze heures keemal la ki jës baare Mbàkke la ñi ci des waa daayira bi la daayira Refane bi ci bis bi dimanche ji ca yor-yor ci biir loolu nag danay dégg ñu naan daayira sàngam moo fa mujj daayira waaye jour dimanche la boo xam ne bi euh, fédération daayira euh, ngaay ñëwoon nañ bu mu juumut mu nawiru sudóor la tuddoon daayira fédération daayira mu nawiru sudóor bu ngaay fédération boobu keroo lan siyaare si woon homme politique ñu ci bari bari ñëwoon nañ fa Ibrahima Fall keroo ñëwoon na fa euh, kii daa waa ina quoi Dame Ndiaye danoo sosoon ab rek ca Sandaga kero kero lan siyaare si ñi ci des nag mënuma ko lim waaye dama leen jukki ci lii rek nga xam ne noonu la yandoo ci santeeg nit ñi ba man bi may tàggoog moom gannaaw timis la ma woo ca néegam mu toog ci fauteuil bi ma toog dend ak moom ñu waxtaan lu yàgg mu ne ma kon na la Ibra Gaye yóbbu parce que bàcc ñëwutoon bu ngeen seetloo ci suba gi waaw bàcc ñëwutoon Ibra Gaye moo ma indi ba ne loolu nag moom foofu laa mën a waxtaan nan lan waxtaan moom doonu lu may mën a wax waaw nee na ma daal man ngaa dem suba damay noppalu soo gisee sama ndaw nga ñëw soo gisu sama ndaw man ngaa toog sa kër léegi bi ma ba yoor yoor gisuma kenn ma ne kon xam naa day daa noppalu waaye nopp waxuma xalaatuma noppalu benn gi ci laa toogee ba ca takku tàkkusaan ma dem kër ga kër gu mag fekk uh, am mbokki taalibe yoo xam ni dañ faa demoon doomam sax mën naa ko tudd so danoo demoon Touba Belel doon ko seeti booba uh, maam Faati Mbàkke moom sëñ Fallu mi xaadim euh, bu soyor booba da doon aji màkk mu bëgg a dem tàggu mu ñaanal ko mu ànd ak soxna ami soxna ami sox euh, doomam la waaw doomi sëñ Ibrahima la sëñ Mudu Maamun ñang moo ko yoroon ñu ne moom léegi booy xëy ngay nga yóbbaale nu ñu ànd yàlla dogal xëyuma man ñoom ñu dem ban demee nag bi ma ñëwee ci ngoon gi ñu ne ma ah ne leen gis ngeen sëñ bi mbaa ñu ne ma ah di sëñ bi gisuñ ko ma ah, lu tax gisuñ ko ñu ne man daal ñoom biñ ñëwee ci kees sàngam lañ commencé tëj te kees googu kenn daawu ko tëj mooy kees gi nga xam ne téléphone ba fa la nekkoon cabine moo fa nekkoon foofu itam ba léegi nag waaw foofu itam ci euh, discours bi mujj a def dama ko fàtte ci kori dafa def discours yàlla dogal na discours bu masaa def euh, dañ koy bind waa is bu tarqiya booba nag tuddugul is bu tarqiya daayira daayira eh, eh, daayira université de Dakar daayira université de Dakar la tuddoon waaye wala daayira étudiants yi waaye daayira université de daal moo ëppoon ci li ko daa wax ñoom ñoo ko daa bind eh, sotti ko français ak arabe ak wolof bi mu doon yàlla dogal nag buñ ko sottee dañ ko ci indil suñ ko ci indilee dama ci jox ne ma boo demee jox ko ndaw Aliou Ndaw mu mu def ko ca bibliothèque ba lii na ko denc lii na ko joxe yoon boobu nag ma maa ñëw jox ko alliou Ndaw ne ko sëñ bi nee na eh, eh, waxtaan waa ngi nii mu ne ma lu ma wax ma ne ko waxuma dara ñu am ab diir ndaw téléphoné ma ca tubaab bi la dama ah dama bëgg nga laajal ma sëñ bi waxtaan wi ndax ba tey mi ngi fi te dama daa wax ma joxe ci lii bàyyi ci lii ma ne ko baax na ma bàyyi ba tàkkusaan sëñ bi génn ma ñëw fekk fu mu toog moom dong ma ne ko ndaw Aliou Ndaw ma nekk daaray kaamil da ma nekk bibliothèque ba daf maa woo téléphone ne ma waxtaan wi nga defoon te joxoon ma ko ma jox ko ko dafa wax ne da ci amagul ndigal ba tey ba tey mu ci doon laaj ndigal mu ne ma boo demee ne ko loolu na ko denc njariñam gul ma nga ca kanam da daal di siggi xool ma ma xool ko su maanaam bi ma waxee loolu ma ne ko jàkk mu sun ba yi ñent mu daan waaye xam nga eh, boo duggee ci séddale rek nangam nangam ma xam ne noonu la demee waaw eh, moo tax kon noo ngi sant di gërëm di ñaan yàlla na ko sunu borom fayal waaw màggal gi itam sunu màggal la rek ndax képp kun fi wooteel jàpp naa ne euh, ku ko ci gën a yay wooteel ko bis ndax itam nag euh, waxuma la ñun mu murid waaye képp ku dëkk ci réew mi defal na la loo xam ne lii sant ko war na la surtout nag euh, sunu génération bii ñun ndax Euh, mi ngi mel ni dëgmaloon nan aw yoon woo xam ni moom moo ne arrêt yoon wi du noonu fii la kon moom moo sawe moo sawe sunu sénération bi ba kenn ku nekk xam sa bopp gëm sa bopp bu njëkk loo ma sa am yàq moo la xamal ne la nit ki dafa waram fulla fayda ci boppam waroo wéeru ci kenn itam nag da nga war a wéeru ci sa bopp ñàkk jariñ foo mën a nekk itam nga doon fa kenn nga doon fa mbooloo ñoo war a waaw kon sant nañ ko gërëm nañ ko noo ngi koy ñaanal ci barke baayam yàlla na sunu borom yokk ay leeram te ñun ñii fi deseele itam yàlla nu fi yàlla bàyyi can tënku ci lam nu daa digal di mooy tund ko lam nu daa tere ndax digleem mooy sunu njariñ tereem mooy sunu lor rek waaw asalaatu wasalaam waaw jërëjëf ehm, jërëjëf Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant bu baax ci turu commission culturel bi nga xam ne moom la sëriñ Sidim Sène Abdou Lahad tànn mu yor liggey lepp lu jëm ci magal gi ñi ngi lay sant bu baax ci turu commission bobu ak ci turu mbolam ñu ko sekkal ci liggey bi moy ñi fi tew ak ñi fi teewu ñeneen ñepp ñi ngi lay sant seen euh li ñu doon sentu ci waxtaan wi am nañ ci lu kawé suñu jort ndax bu yalla dogalé ngay wax ko xam sëriñ abdullah hat wax ji day ak jëm sëriñ abdullah hat ndax lepp da fay deggu lepp da fay tege war wara tege kon xam nañu ku dund Serigne Abdoul han nga kon ñu parataan xamal leen si nyang ñang mii ñu doon waxal doomi Serigne Afia ñang la mok sin Modou mamun ñang ñoo bokk wenn wajur Serigne Afia ñang nag ku ne xam nañu lu mu doonoon ci yoon wi ndax yàlla dogal na ci mag ñi njëkkoon a topp chala Touba ci la bokku doon tamit mbokkum Serigne Touba ndax soxna mi wajuram sëñ busu bi mi ko jur ak maam kon bokum Serigne Touba la don taalibe Serigne Touba don wattu barabu Serigne Touba ak njabotam jeex ci keur Serigne Touba kon bu yalla dogale nga nekkon taxaway bi ci kanam sama ju bax ji Cheikh Mouhamadul Mahmoud ba liggey ba lepp rafet nam war rafeté tay buñu tay dila séré ak tiant ak ñaan dana waral ñu xamné la nga xam ne jiitu woon na ñun ndaw ñi am nañ lu ñu roy te li ñuy rey mooy li nga xamante ne mooy lii nga wax rek ndax moom kàddu yi nga wax jur commentaire tënk na boppam waaye li ma ci gën a nattu man njàpp ma mooy li nga wax ne lu muy def lu ne day xool ka ko man lu muy def ne day xool ko man loolu mooy li nga xam ne mooy defar jamono kon nag yàlla dogal na kàddu yi rafet na tegu na ci xam-xam mel ni maramal kon ci turu commission bi ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di soññ ñëpp ci magal gi di xamal na commission bi ñi ngi déllu ak cant bu baax serigne Sidi Moussa Abdoul hak ndax commission bi lu ñu mën Sidi la ndax dañoo amoon yene liggéeyal serigne Abdoul hak serigne Sidi baaxee ñu bañ mëna am liggéey serigne Abdoul hak ti lolé nak yëmut ci dem leen liggéey waaye lamu war lañu wara jappalal suñu liggéey lepp lepp bu re ci kaddu bu re ci man-man bu re ci lu man di doon serigne Sidi moñu ci féete wet gépp ba ñu dara jaaxluñ ci dara tax na lépp luñ bëgg ñu di ko def lépp day delluwaat ci moom commission bi daal ku gis liggéey bi sant leen sant gën a dellu sëñ Sidi ndax lépp moom la kon sëriñ Mourtala ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax di am mbégte lool ci nangu gi nga nangu lii di ñaan tamit nag sëñ Abdou Lahad moom nga doon waxtaane fàggul la ci ngërëmal Seexul Xadim ci defal ñu ko ñun ñëpp ci bàkk Seexul Xadim yoo xam ne sëñ Touba rek la ñu yaakaar tey moom la ñu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek la ko def